Ousmane Sonko daa bokk ci langum politique gi Ousmane Sonko daa bokk ci Sénégal bokk ci ñi nga xam ne jamono ji kenn mënul yëkkati leen baa nga wax leen yu jëmale réew mi kanam te doo ko ci tudd rawatina nag lépp loo xam ne daa jëm wàllum jikko bu rafet ci ki nga xam ne day yëngu ci lu ñeel wàllum politique fépp nag foolaal jamono ji da nga fay fekk Ousmane Sonko ñu koy waxtaanee wala boog la ñuy wax dafay méngoo ak ay doom ba waral yenn ñi sax dañ leen di taxé que ne dañoo far ak moom Ousmane Sonko jamono jii dafay méngoo ak far ak dëgg loolee moo waral ay kàddu yu oustaz Mbacké Sylla moom la ñu leen fas yéene dégtal la bu leen fàttee aimé vidéo bi ngir ñu bëri daal di ci mën a jot AGT News. Ousmane Sonko moom ci dëkk bii yaakaar naa képp ku fi wax dëgg ci politique ñun la moom nga faral damaa yaakaar ne daan ci dëgg nag waaw damaa man daal man daal man daal su ma juumut dafa ne ci dëkk ndax bu ma déggee imaam ju xutba wax ci bonne gouvernance même bu fekkee Omar ibn Abdou Aziz la doon waxtaane bu noppee ñu imaam bi Pastef la boo génnoon tey ne dund gi dafa seer facture courant yi dafa seer dañoo war a góorgóorlu ci nangam boo daanelee ñu ne la Pastef nga faral man damaa yaakaar ne Pastef daane ci dëgg léegi nag bañ a bañ a bañ ñu ne ma Pastef nga nag ma faral Ousmane Sonko faral Ousmane Sonko du gàcce ci réew mi parce que nit ku dëggu la nit ku jub la ak la fi wone mhm. euh, euh, dëggu la fi wone kon ku faral moom koy loolu nga raw AGT News ñoo déggandoo kàddu yi lu mel nag li muy firndeel mooy Ousmane Sonko daa soppi langum politique gi dem na dema dem dañu ñu bëree bëri di àddu ci réew mi ni muy doxee moo leen mayaat fit moo leen branché waat ñu démissionné woon ñëpp dikkaat nañ di wax ci réew mi naka lay doxee di ci joxe itam seen gis-gis léegi sénégalais yëpp ñooy wax seen xalaat luy jëmale kanam suñu am réew di Sénégal loolu nag bu fekkente ne day dem ba waral képp kuy wax dëgg rek ñu méngale la ak farandowu Ousmane Sonko amuy tekki mooy lider politique bu bees boobulee wute na lool ak ñi fi nekkoon ndax nag baatub dëgg bokkul woon ci li nga xam ne dañu koy dàkkantalee kuy yëngu ci lu ñeel mbirum politique ñoom seeni kàddu yi naxee mbaay la ñu yoroon di diggante duñu def promettre la lu dul jeex élection bu rombee ñu fàtte la tege la de côté bàyyi la nag ak say jafe-jafe nga koy dund bés bu yàlla sàkk loolee moo waral ndax jotul tey jilee ci nekk di wax dëgg gi nga xam ne moo am ci réew mi lu ci ëpp ñeel injustice bi nga xam ni moom Ousmane Sonko mu ngi koy dund ak i ñoñam nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy sàkku jamono ji moo di jongantey atum 2024 moom moomale di Ousmane Sonko mën a bokk ca ña nga xam ni ñooy daal di sëgg bëri askan wi mooy attee askan wi mooy xool fan la dëgg féetee mu daal di ànd ak moom kenn nag mënul umpale ni Ousmane Sonko am na mbooloo mu takk moo xam ne moo topp ci ginnaawam nekk di ay sénégalais ñu ci ëpp di ay ndaw gëm-gëm yaakaar ak surtout dëggu bi nga xam ni moom la oustaz Mbacké la doon wax léegi moom la àndal moom Ousmane Sonko tax nag léegi sénégalais yi ñoo yeewu xam fu ñuy teg seen tànk dara yóbbootu leen changement la ñuy war a coppite pour mu am faw rek dëgg googule daal di koy jiital ci lépp lu ñuy def lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy jëflante ak askanu Sénégal nañu nag daal di jublu ci dëgg fas yéene liggéey te xam ni mooy ponk bu njëkk bi ñuy jiital ngir lépp mën a jaar ci yoon askanu Sénégal ndax xam nañu leen di xaar askanu Sénégal ñi ngi jublu jongantey atum 2024 bés boobule le 25 février dëgg dong moom moo nar a gagné lan moo ko nar nag daal di porté lépp dina leer yàggatul sénégalais yi mën a xam fu wànnent di mujjee ak i gëttam AGT un de vérité et peut-être toujours cité dans ce sens car ayant toujours tenu des discours véridiques à l'endroit de la population sénégalaise raison pour laquelle nombreux sont ceux qui s'intéressent aujourd'hui à la politique au Sénégal qui donnent leur point de vue leurs avis, leurs opinions. Et tout cela grâce à Ousmane Sonko qui a permis de décomplexer les analyses politiques au Sénégal qui étaient autrefois laissées soi-disant intellectuels qui ne faisaient rien d'autre détourner les Sénégalais de l'essentiel. Certains même d'entre eux constituaient le mirage entre la population et nos gouvernants. Grâce à Ousmane Sonko, la jeunesse sénégalaise s'intéresse désormais à la politique au Sénégal, mais la politique politicienne est alors que tout ce qui les intéresse est d'accéder au pouvoir et commencer à se servir à leur guise. Raison de plus pour que les jeunes s'intéressent à ce leader assez pertinent et charismatique dont le discours empli de vérité ne fait rien d'autre encourager les jeunes à croire à leur pays et de travailler dignement pour accéder au développement dont on entend parler depuis